thank you super bi nag compte bi ak assurance beeg carte ak bi fi ñal beeg visite technique bi rapidement a ca yéen da nga nit ñi quoi da ci taxaw yéen da nga def fàtt ne ci weeru koor lan ne quoi yéen xàmmeewu leen weeru koor xàmmeewu leen ah ah, ah mais weeru koor yow nga oto bi oto bi mel na ab sëb buy tàkk mel na ndiraan buy tàkk ah, xëtatat joo xam ne saxaar si ñuul ko fatt nit ñi kenn mënta noyyi ci réew mi kenn mënatu la noyyi pour quelle raison ngeen ko fan mais yéen rek kay tax ba nit ñi wopp nit ñi feebar mais vous allez voir avec moi. maa ngi voir avec moi nga ba danga may jàppale ni ngeen def danga may jàppale danga may jàppale ba kañ ah ba ngeen lor nit ñi rey nit pour quelle raison ah xoolal oto bële moom xoolal xoolal xoolal kële di mel ku kii pëtam naaf gerte wala comme ça là eh nii la ñuy def ba toroxal nit. waaw mais fayal cigarette ba fonto ah mais maa ngi wax teeru la ku man ñu waxat jën nga taal cigarette. ci weeru koor gi di yàq koor nit ñi. baalal ma rek baalal a feebar. mais kii tam moo wéewu noo. non ah, ma fonto ba gaar ma fekk eh, seen tappale gi ngeen di bàyyi ah, bu weeru ñëwee ku ne naan damaa wopp da mais bu leen fonto ah. mais tu vas voir avec ah, sabar rek ba sabar ñu ñàkk fayda lagar lagar mu toll na yow ah yor jabar yori doom doo woor ah ñu ngay jaxar laxar ci mbedd bi comme ça là eh ngeen teg ko fan ah nga daas yéen yéen sa boor taxi jikko ji bon ngeen yoraat mu leen ma fonto même seen biir taxi yi seen yoon nekku ci da ngeen di toog biir taxi yi lu leen neex da ngeen koy def te xamu leen client bi ngeen di yeb ba xam ba gën a cigarette eh, fonto ah jég baada jég ma allo mère Daba maire Daba daal tey conférence balaa yéen kalaasu Khady Diallo gi Ndeye Fatou amin Amina oustaz ñoom rek la doon waxtaane xam nga tey thème bi mu jël mooy lekk lu lewul xam naa ne ci weeru koor wii nag ku ci lekk lu lewul ba dee ba wuy sunu borom su boobaa din nga ko layoo tey daal oustaz moom ana neex a dëkkal ci ci moom rek la wax may la tegal ma kafe sa kër laay ndogu se maa ngi ñëw léegi léegi xaaral nag ba neex a dëkkal ñëw nag nga doog maa woo kalaasu Ndeye Fatou Ndiaye geeg Khady Diallo maa ne gi moom yii xam naa ne lu lewul moom si jamono ji ku koy def rek war nga koo seet seetaatal ko parce que jamono ji gàtt na. waaw léegi teel teel ba wala. non non garaaw ma teel ba teel nii teel léegi wuy ba. coow li lenn la quoi dama lay bindal reçu nga dem brigade fay. rapidement weeru koor lan ne bu leen koy fàtte de booy weeru koor lan ne mbir mi dafa war a sell mbir mi dafa war a jaar yoon da nga baax li ma la wax jaaroon na yoon selloon na ndax ñun suñu liggéey rek la ñuy def mais dama booy bu la ma xolal da nga ci bàyyi xel ah. te yow sa frein bi baaxut ah, da leen defar seen frein yi nawet da ngeen di defar muy baax di neex nawet ndox mee tax da leen defar seen ma fonto bu leen ma fonto pardon dañu jégalu man de xam naa ni may def boo moytuwul taxi sax laay jëlee Sénégal taxi ci boppam laay jëlee Sénégal mu jeex 6000 francs ngay fay. ah di mën a non yar ku dul liggéey ban tur. Eh, ah di mën a koo jéem a corrompre di ko jéem a jënd. baal ma defal ma 3000. koo a man. andi permi dawal brigade fay 6000 boobu ba tiggoo nga jaar fii ma reçu ma jox la sa permi rapidement allez teg. xoolal te échappement bi boo ko defarul échappement bi boo ko defarul fun daje naa da nga dem fun daje da nga dem commissariat da nga fay. infraction lu mu ndaw ndaw da nga dem brigade fay bu dee da ngeen a defar ñun dañoo taxaw ci télé bi di fi nekk di lekk ñaar téeméer di lekk ñeent téeméer da ngeen di fontoo nit ñi delloo ñaar téeméer. c'est vrai que ça mais vous allez voir yéen. deekul day. సిగరెట్ వేరు కోరు నీకడా ఓ తమ్మకి చిందండి సౌరమ సాజ పన్నరి చేటుడా సకచి సబు అప్పు సైట్ నంగల ఇదో కుంగే